bépp jigéen bu dul doomu borom daraja ci réew mi xamal ni sa ëllëg mu ngi ci guuta muy kàddu yu njiitu APROFEV Gabriel Kane rotal ci jàkkaarloom taskatu xibaar yi ngir ñaawlu taxawaay bi justice am maanaam yoon ci dossier kii di Lissa Tine mi ay mbokkam ay atangi ak Aïssa Diop ma jote woon ak jëkkëram. dossier nag lu tax ñu ciy wax c'est que dañu dafa nekk dossier yoo xam ne ñun ñu ngi ciy topp boobu ba tey euh, mais euh, dañu gis ne dañu tumurankeel ay jigéen parce que duñu doomu kenn euh, justice Sénégal dafa seetaan. seetaan sax wala ba nekk complice parce que yàggul dara euh, ñi ngi fàttaliku ne am na doomu kilifa gu mag am doole ci réew mi mën a wax ci réew mi ba doomam réeree balaa guddi indilaatal nañ ko doomam xam fu doomam nekk donc ñetti atu yàlla duñu toog te xamul lii sa tin ñi fu ñu nekk loolu justice su Sénégal wala police su Sénégal bu ko defee dañoo def lu leen neex dañu war a ku ci nekk ci ñun xam ne euh, jigéenu Sénégal yi ñoo ñi ngi nekk en danger parce que bu ñu seetaanee lii ku ci nekk ci ñun bul dalee sa mbokk dal sa doom wala dal sa rakk Euh, te doo doomu kenn wala amoo mbokk kenn ci fu sori euh, dara du la ci fekk donc suñu bakkan en tant que jigéen jarul dara ci réew mi. moom Ibrahima Tine dina leen wax naqaram ñetti atu yàlla xamul fu doomam féete euh, procureur ba ba ñu defee enquête ba pare dafa classé affaire bi sans suite di ko fàttale ne jigéen bu réer ci réewu Sénégal warul nekk dossier bu ñuy classé sans suite. parce que bu jigéen réeree ñu war a mën a jël lépp lu nga xamante ne mooy seen matuwaay ak li ñu jàng ñu war a jël xale bu jigéen bi wër ko wax ay mbokkam fu mu nekk. donc gàcce la tey le procureur de la république classé sans suite koo xamante ni dafa réer ay mbokkam di ko wër. ñaari mbirum dossier yi waraloon woote wi Gabrielle Kane woote moom ndaw si Kane sàkku si procureur bi mu jublu si. gannaaw ba mu ñaawloo jeng bi justice bi jeng. persek mi toog man maa toog sama kër mu woo ma man du ma woo kenn du ma dugg ci xeexu jàmbur te woowuñu ma xeex bu ma dugg dañ ma cee woo moo ma ci woo ma fekk ji ko euh, am ci naqar lool parce que góor gu takk jabar. tëddee ko fase ko ndax ne nga yoo yaa amoon ndaw wax dëgg yàlla góor gu ñàkk joma ngoog góor gu ñàkk jox jigéen cëra ngoog man loolu laa wax la ma waxoon ba juge bi teg ma daane nee naa ko tey laa koy gën a waxaat bu ko neexee nag mu yóbbu ma camp pénal am ndam trop mu yóbbu ma camp parce que dañu nekk ci réew moo xamante ne doowul doomu ñu amul doole ñoom lañ fi néewal Souleymane Ciss ba mu taxawee ci kanamu baat ba procureur baa ngi taxaw juge baa ngi taxaw bañ ko laajee nee na yooyaa waaw moo takk ndaw si nee na yow yaa waaw moo fase ndaw si léegi moo takk ndaw si moo fase waa ji kenn ne imbécile la kenn du wax ne góor góor yii ñu jël jigéen ñi di leen toroxal kenn du ci wax dara maanaam nañu noppi léegi justice bi na jël benn jurisprudence jigéen bu ñu toroxal ñeneen ñi nga xamante ñoo yàq yor àq ak yelleefu jigéen nañu noppi di seetaan ba kañ wala ñu sol robb amuñu ay doomu jigéen ndax ñoo ñoo ñu sol robb yi di àtte xam nañu seeni doomu jigéen bu ñu leen toroxalee du demee noonu effectivement ñun ñoo ko saisir man maa ko saisir man euh, Malick moom laa ko wax Malick saisir ko mettre ma en relation ak moom ci laa ko woo explique ko affaire bi yëpp donc nii la ci Gabriel duggee. kàddu ya ko juraloon ñu teg ko ay daan di mbirum Souleymane Ciss ak Aïssa Diop njiital APROFEV xam leen ni tey la si gën a tënku. àdduna nag lebal la da nga la ñu lay fay euh, maître Clédor Ciré Ly defe naa def na appel bi euh, fa bax ne ndaw ne benn fa lañ demoon dinañ fa dellu si waat te même bu fekkente ne jugement bi mu def. jugement bu may ñaawlu la te defe naa ne bu Séné yu Sénégalais yëpp war a ñaawlu parce que ku toroxal jigéen nga ne kooku mooy victime yow complice nga donc on a justice boo xamante ne day ànd ak saay-saay ñi nekk ci réew mi di leen jox dëgg saay-saay yi toroxal jigéen ñi. donc ci dëkk bu mel ne Sénégal ñii woote nañu yooyu yaa démocratie lañu ñii woote ne yooyu def nañ fi jéego yu rëy ndax ne nañ nag dañoo nekk ci émergence mais émergence bi yeggul ci jigéen ñi parce que bu ñu yeggee bay toroxal jigéen ñi ne ña nga xamante ne ñoo war a wax du ñu wax ña sol bu taxaw ne kenn du wax wax dëgg yàlla man maa ngi leen di seetaan te li ci kanam raw li bët parce que duñ ko bàyyee noonu bu ñu toogee nag ba justice di tëj ñi nga xamante ne ñoo yor dëgg ndax nag ña ngay defaan ñi ñi néew doole ñu defe ne réew mi amatul justice sax dëgg yàlla ndax temps yëpp ñëpp a ngi ne dëkk bi amatul justice mais defe naa ne injustice bi ci jigéen ñi la gën a na gën a bari. waral mu sàkku si procureur bi ñu tabu yees mu bañ a toppi tànku ki mu fu wuutu ba bañ a gàntal yooyee dossier.